ñoo ngi fii ci kanamu Serigne Amsatou Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat moom Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñëw fi tey nag ci ndigalu Cheikh Mahamadoul Bachir Anta Niang xalifatu Cheikh Ibrahima Fati borom Darul Moxti waaye ci taxawaayu euh, ki nga xam ne moom la Serigne bi dénk lépp lu jëm ci wàllu communication màggalu Darul Moxti muy Serigne Abo Mbacké moom euh, Serigne Bassirou Anta Niang waaye Serigne Abo Mbacké moom soxna Taïr moom Cheikh Abdoulahi Lahat Mbacke nu ñëw fii nag tey ci kanamu Serigne Amsatou Mbacke mi nga xam ni mooy njiitul xuddaamul xaddim di euh, kuréel goo xam ni lépp loo xam ni jëm na ci war may dëkk bi ak taxawaay taxawaay bu mat sëkk ba Serigne bi li mu bëgg ci dëkk bi lépp mu am ko moom mii moo ko jiite ñu ñëw fi nag tey ngir sàkku ci moom ay kàddu yoo xam ni rek dana jëm ci Cheikh Ibrahima Faty borom Darou Mouhty di gëm ak sangam bu tedd ba magam ja sangam ba sëriñam ba sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul rawatina weeru saxbaan wi nga xam ni ci la ñuy fàttaliku seenub daje ginnaaw tukki bu sell bi nga xam ni sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaadim tukki woon na ko kon ñu jël micro bi dékk ko sëriñ am Amsatu Mbàkke taaxeerlu ci moom ay kàddu diggante sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba ak Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti sëñ Ebo maa ngi lay nuyu nga àndal sama nuyoo sama waajur sëriñ Basiiru xalifa maam Cerno di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggale yëpp ak naali waajuram yi ak naali boppam mu ànd ak wér ak gudd fan di ñaan itam usa daaru maxti bi yàlla defal leen jàmm dafa leen tawféex musal leen xam naa di am mbégte mu nag ak bànneex ci ñëw gi ngeen ñëw fii ci ndigalu suma waajur Seex Basiir ngir bëgg taatan ay kàddu yoo xam ni day jëm ci sunu sëriñ sunu maam suñu kilifa Cheikh Ibrahim xam naa dana jafe ndax dimension bi mu toll dafa kawe ndax euh, da nga dul xam moom dafa bokk ci kumalul awliya bokk ci akaabir ulama kon nag ki wax ci moom dana jafe ndax wàlli yi moom aqwaalum tutwa wala tunsar te kalaamuhum isaa dahaka yabali faqul kama xaala sakki xabdi loolu inna kalaamal awliyaa la sut afhamu bi anna nii ana ana wa kon Cheikh Ibrahima dimension dafa kawe ndax dafa bokk ci wàllu yàlla yu mag yi kon kooku lu neex waxtaane waaye nag jëfam ak diggam ak Seexul Xadim moom nees waaw kon saayis rek la ñuy waxtaane bokk itam ci borom xam-xam yu mag yi nga xam ni mën ngaa wax ni ñim jàngal rek doy na sëkk sëkk sëkk sëkk nga xam dimension xam-xamam te dafa am lu jafe loo xam ni moom la ko yàlla jagleel ndax euh, produit wu sëñ Tuubaa la boo xam ni kenn fépp ko ca am na ñoo xam ne dañu fay ñëwee cig mag am ñoo xam dañoo jàng doog fay ñëw ci moom waaye moom sëñ Tuubaa da koo defal léppam kon sëñ Tuubaa moo ko produire mu ngi dëgg dëgg sëñ Tuubaa kon ndax comme mooy bara droit am xaddu yemini yi nekk aminu sirri yi kooku moom rek la lam daawul waxtaan waxtaanee kenn moom la koy waxtaanee kon mooy secret Serigne Touba dëgg dëgg dëgg ci borom daaru la nekk ku mel noonu nag waxtaanee ko mooy waxtaanee Serigne Touba ndax li nekk ci moom lépp Serigne Touba ko def Serigne Touba wóolu ko doyloo ko moom itam mu doy mat sëkk di bokk Serigne bi laq laqrab di taalibeem boole nag xaqiiqa ak sariya fekku maanaam ci gàttal xaqiq ak saxiix mooy doon doon doon li sëñ bi wax boole tasawuf ak fiq mooy saxiix mooy mooy mooy loolu ak saxiix muy jëmm joo xam ni wàllu xam-xam wàllu jaamu yàlla kenn mu mënu ko ca jam ak taalibi tam kenn mu ko ca muy ñaar yu boole yu jafe te mooy li sëñ produire ci moom am na ñi dañuy doon sariya doon doon seen taalibe du ñëw ñi doon nituk euh, nituk xaqiqa seen sariya du ñëw moom nag daa dañoo boole yëpp ci moom kon nag loolu moo tax mu mat moo tax mu gën a mat ñëpp itam te dafa lëggéeyam dafa dafa def ak lëggéeyu sëñ mu baas dañoo jonjoo ci yu bëree bëri ndax sëñ bi bariwul ñu muy yónni yenn yi waaye xam nga xam ne na mën na koo wutu xam nga xam nga xam ne li newoon ci moom def na ko ci moom moo tax ba mu yónnee ndar moom la yónnee ba mu yónnee ndar moom la yónnee ca tubaab ya mu demee fa ak mat demee fa fulla demee fa ak doy ba la sëñ bi bëgg ak la mu war a wax mu wax ko te yóbbu ko dara wàññiwu ci dëkk dëkk fekk si waat bi kon kooku am na lu mu sëy ci liggéey sëñ bi ndax sëñ bi moo waroon dem te mun mënta dem mu yebal ko mu dem bi sëñ bi loolu mooy awalan bi sëñ bi bi liggéey bi commencé rek ko loolu mooy ci la jeewal ñëw ba sëñ bi dem dem ndar def yooyu bi mu demee ndar yi bi mu demee itam dénk ko lépp yoon yu murid sa njabootu bopp Cheikh Mamadou Fadl moom Mamadou Moustapha maam Thierno la ko la ko dénk kon moo ko doon ci njabootam taalibe itam ñi muy defar ñi mu doon defar jonjoog ñoom moom la ko dénk benn ci sama turoon wax sëñ am sutu jaxate ku ne xam na fi mu toll ci suñu borom ak fi mu toll ci yàlla bi mu ñëw ci sëñ mokk na waaye bi sëñ bi dem itam maam la ko dénk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi mu la koy doog a jël kon xam nga ni amul dendandoo amul nawle ku mel noonu nag su bisam ñëwee ñëpp a ca war a teew ndax njëriñ rek lañ fay jële loolu dafa amul ku fa tëbbu tëbbu nga ci digg digg sëriñ Tuubaa ndax Ceerno mooy sëriñ bi bokkoon na ci mébétam fii mu nekk moo bëggoon moom dongal tànnoon wétali ko kon kooku xam nga ni sëñ Tuubaa amul nawle waaye Ceerno la naw la woon te mat nawle tamit ndax dafa sàmm màndu mat ba noppi matale di liggéeykat boo xam ni amul nawle ci liggéey mooy yim boole di borom nitu xaqiqa di nitu sare ba noppi nag liggéeykat li mu gor ci ay tool ci ay dëkk 40 kilomètres la ñu wax di liggéey di dundee aw ñaqam di jox sëñ Touba dafa defoon ni magasin yoo xam lu mu fa lañ def lu sëñ bi soxla rek fa la ko jël si kooku kon denc lu woon dara ngir boppam. dafa pare woon léppam ngir sëñ ngir ngir ngir sëñ Tuubaa doy na sëkk rek sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne moom kër gi tey baat boo ko maam Thierno dénkoon boo xam ni ci la sëñ Abdou defee lépp lu mu def boo ko sëñam si jaxatee woon ni ko demal seet sa maam ci sa sa baay Thierno mu téye ko fa ay ay fan ba muy ñibbi mu ne ko lépp a ngi waaye du la jox dara ndax boobu sëñ baa ngi seen du ko ceerno dimbale wala nanga nanga ne ko dara laal du jox daa boo xam ne fu sa baay àgg moo fa àggal moom laa dénk nga na nga am lu mu def joma ko joma ko def loo boobu nag doy sëkk rek hmm? nga ni li sëñ Abdou Lahad def te jom def ko te fulla def ko lépp maam ceerno ko mel noonu nag jàngal ku mel ni Cheikh Mahamadul Fadal jàngal ko mel ni Cheikh Mahamadul Moustapha ñu teg ko ci loxoom ak yi mag yi murid yëpp ko war a delloo njukkal a ngi noonu te benn bu mën a fay ceerno bor amul kenn matal kenn mënta matal ndax ni mu def sëñ ak ni ko sëñ loolu moo jafe baaraaduraam dafa jeex mu ni mooy sama xadadu yam yi nii mooy sama bërëbu ndi yor la sëñ Tuubaa waxoon kooku rek dafa doy sëkk doon loxo sëñ loxo la yore sëñ Tuubaa rek dañu sëkk ndam dañu sëkk de kóoliteef muy ndab loo xam nag sëñ bi da koo duy ba mu fees del del del del mu rokkos ko ba dara xaju jut lépp Ceerno mooy lépp sëñ bi lépp sëñ bi tam mooy lépp maam Ceerno kon su bisam ñëwee sëñ Bas mii nga xam ni moom la yàlla tekki ci kanam ci njaboot gi muy nit ku bari xam-xam moom itam nit ku mën a jaamu yàlla di nit ku mën a muñ ku goreet a doylu ba yàlla teg ko fii ci kanamu njaboot gi toppe rek moo ko may diggam ak Sëñ Abdou Lahad ku ne xam na ko sotti jeeg def la woon da daan waxtaan ci biir nekk loo xam ni kenn mënu koo wax li tax nga xam ni maam Thierno amul nawle dama koy tënk ni rek junju ndax euh, sëñ Bass moom yaakaar naa moo ko sëñ Abdou Lahad la woon am na bis boo xam ni dañoo ñëw tubaabel ba añ jotee sëñ bi woo sëñ Bass ni kaay nu bokk am ku xam a jigéen noonu ci ak bokk mu di ko woo ngir bëgg sëñ bi ne ko bokkuñu bàyyi bokkuñu waajur yi bokkuñu hmm? day sëñ bi rek ci gàttal day sëñ Tuubaa ci gàttal hmm? day sëñ Tuubaa mooy produit produit wu naturel boo xam ne <laughs> lu ne ci moom sëñ Tuubaa bi def doon bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon bu doon aw ñam tey engrais yëpp da cee nekk am na ñoo xam ne seen see see see seen seen ndab xaj na manqué na jaxatu wala manqué na soble wala manqué na nangam wala manqué na diwlin ci ron nag ndaawam lépp da jaane manqué wut xor manqué wut dara ku mel noonu nag yàlla na yàlla taas ci barkeem te yàggal fi njaboot gi wëral leen fas yéene ñun ñëpp di taalibe rek ngir tëbb dem Daaru Musi sàkku barke da yaakaar naa lu waay ñaan ci Serigne Touba tawasul ci maam Thierno da nga ko pour cent kon nag jamono yeeg jafe-jafe ñu ne ci réew mi yàlla na ko Serigne Touba saafara yàlla na ko suñu borom saafara ci barke maam Thierno ci màggalu Daaru Muxti gi wax yu dugg am na am na benn kii rek mbàkke bu ñu bëggoon a tëjee mooy euh, ni nga ko waxee sànq diggante Cheikh Mamadou Bassir ak euh, Cheikh Abdoulaye Lahat yaakaar naa ñëpp xam nañu ko. Euh, boo ñëwee ci keppaaruk sëñ bi sax daanaka doo toog bu jug lu mu la wax rek danañ ne sëñ sëñ nee na ma nangam yàlla def nag sëriñ bi di woote jumaa joo xam ni daf koy defal borom daaru muxti ndax xam na ni mënu ko defal dara lu ko gën a neex yeesalal ko jumaa jooju defar ko muy jumaay ñetti milliards. waxoon nañu tamit bu ñëwee ñu sàkku ci rek ay kàddu ndax euh, maam Thierno ëpp na génn kër maam Thierno yoon mi yëpp la ak jullit yëpp euh, mu fas yéene ne ci liggéey boobu nu ci soññi taalibe yëpp rek. loolu de moom ku bëgg ndamul Serigne Touba bëgg ndimbalul Serigne Touba bëgg teraange ëdd ak àllaxira ba nga barkeeloo ci daal jooju te jumaay darul maxtu jooju ndax moog ji sëñ bi tëdd ak fa Thierno tëdd benn la. xaj na sun boroom ak sëriñ bi ñoo bëggee mu doxal nii ñoo waroon a bokk fuñ ne hmm? gannaaw nag teqali ba def fee eh, jumaa ñu denc fa maam Thierno kon jàppal ni fa bi ne sunu waju bi nga xam ne moo koy yokk nii rek la nit moom day xol surtout kilifa yaatu dënn bëgg ñëpp jariñ nag moo tax ma di ko woote nii ba yokk som som bi àgg fii loolu nag lu dara ci yoon murit du dara ci murit yi du dara ci julli sëñ Tuubaa ci julli julli réew mi na ci ñëpp def na ci ñëpp jàpp ndax euh, bëri ci mbata la ku ci jàpp maag ku ci jàpp maag ndax kat bu sëñ Tuubaa de première Ceerno deuxième waaw te it daa fekkee tàmbali bi fekkee mujj lépp ànd ko sëñ bi rafet kon nag fa mu tëdd daan jàmm yàlla te ku ne xam ne bi mu fi li muy dund ba mu fi jógee mësati mbaa benn yoon la ko def la ñu wax te bu amee ndox euh, fay na ko kooku yàlloon na jàkk yàlloon na jumaa kon kii kii sëñ Bass mi mi mii koy def war na ma ni moom de ceerno ko yenkal wala sëñ Tuubaa ngir mu yaatal ko ndax fa yonent bi te dañ ko yaatal fii jumaa ji sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad da yaatal kon nag bu yaatalee wàcc na yàlla na fa yàgg te wér te àggale barke sëñ Tuubaa barke borom daal euh, euh, mbokk yi kon kàddu yooyu la ñu jëlee woon ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoulaye Lahad Mbàkke muy kàddu yu am solo yoo xam ne wax dëgg yàlla Mbàkke waxaaleen nga ko njabootu Cheikh Abdoulaye Lahad gépp ndax euh, sang bu tedd boobu de tey bu fi nekkoon na mu daan jàppalee sëriñ Basiru ci lépp lu mu mën a nekk xam naa ne boobaa dana yëkkati kàddu yi nga yëkkati jëmale ko ci kon nag noo ngi ñaan taxawaay bi yàlla na yàgg